ca ba tey ñu ngi fii Touba Mbacké si dëkk suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim ba léegi ñu ngi si xabru yi bañ jógee xabru suñu maam am suñu maam Abdou Khadim ci xabru suñu maam Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu ibnu Khadim Rasoul ñu fas yéene am nu ñuy waxtaan ci ndaw ñi nga xamante ñoo nekk fii yor bërëb bi ñu mën ñoo wax tuuti ci sëñ Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu ginnaaw ba ñu ko nuyoo pa day ñëw laajte ko incha allah salaamaaleykum sëñ bi waaleykum naka la Fallou Fall Fallou Fall nekk fii doon ndaw lan lañ mën a lan nga ñu mën a wax ci Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala an donte ko dootuñ ko présenté Sénégal. waaw man de li ma wax Serigne Fallou damay sant d'abord si euh, julli ci yoon bi sant Serigne Touba mi ma yaakaar àdduna ak àllaxira di yaakaar Serigne Fallou euh, di sant Alaaji Baara Fallilu mi nga xam ni moom euh, bu ma ñëpp xamee moom la ndax man yàlla dimbali bi ma ñëwee Touba kër Alaaji Baaram Serigne Fallou fa njëkk a nekk. di fa nekk di liggéey Serigne Touba Serigne Cheikh Modou Fadal ba suñu borom. Euh, mu wujj borom seex mu mu xam mu wujj waajuram alaaji fàllu mii euh, suñ borom def ma euh, ku ñuy wax sëñ basum sëñ fàllu indi ma fii ci barabu sëñ fàllu bi di rakkam man nekk fi di ndaw loo xam ne dama jaayante liggéey ak fàllu di ñaan yàlla di ko liggéeyal ba keroog may sàngoo suuf dëgg la nag sëriñ fàllu fekk ma ay jamono waaye dafa mel ni ñun fekk nañ jamono ñu ndaw ñi ndax xol yëpp ku ki xale bi mu judd juddu moo la gën a bëgg kuy sëñ fàllu Euh, xale buy giñee sax sëñ Fallou lay giñee euh, li ñu wax ci sëriñ Fallou nag moom euh, ku ko mos di ko xam képp ku jaaxle kenn ku ne am nga sëriñ nag waaye ku jaax ku ne sëñ fallu ngay woo waaw. ndax sëñ Fallou moo juboon ak boromam sëñ Fallou danaa wax ak borom boromam da kenn ku ne da nga daan ñaan sa borom waaye suñu borom da ko daan wax naan sëñ Fallou foo waxal foo ko bëggee ma defalee ko foofu xam ne kooku kenn moom moom sëñ Fallou. ban ban lan ban lan nga ñu mën a wax ci moom loo xamante ndaw ñi dinañ roy ci moom. waaw sëñ Fallou moom euh, képp ku ko euh, xamut it euh, dégg nga ko ndax ku ko xamut it dégg nga ay jalooreem yi mu def bari na jalooreem yi mu def ndax sëñ Fallou moom dafa boole woon ñëpp jaboote ñëpp amul murit amul tijaan amul xaadir amul layen amul catholique amul chrétien liy firnde ji mooy ki ñu wax Senghor xam nga digganteem ak moom Senghor gëmul ab catholique woon waaye nag Serigne Fallou xaritam la woon moom demoon na ba ni nañ ko bu ko kenn piis nañ ko nee leen ko jàkkite bu leen ko piis ndax euh, bëgg gu ko bëggoon moo tax ndax sëñ Fallou yërmande ji dafa bari woon ca képp ku jaaxle euh, boo jaa boo jaaxle ba dem ci moom euh, sa jaaxle nga fat nga fàtte ko fàtte ko sëñ macha allah am na solo gis nga mu ñuy wax ci suñu maam Serigne Fallou radiyallahu taala anhu loolu euh, li nga xamante ni am na lu ñu wala mën a royu ci moom muy suñu maam Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu ba tey bàyyeeguñ de dañuy ñëwaat demaat ci beneen xabru li nga xamante ni ñu waxaat ñu tamit euh, loo xamante ni dinañ mën a royu ci mag ñu baax ñooñu nga xam ne ñoom ñoo aar Sénégal ñoo yiir Sénégal papa ñu ngi lay sant di la gërëm waaw jërëjëf sama jigéen maa ngi lay sant di la gërëm yàlla na télé euh, gën a kawe ba ñëpp dem ba monde yëpp di ko seetaan barke Cheikh Modou